Lamine Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay euh, fay Awa. ngay taskatu xibaar nag ci wàllum aada ak cosaan fi nga xamante ne mooy Music in Africa tey jii leen nag muy lundi de Pâques bëri na ay artistes yoo xamante ne yu ci mel ni Coumba Gawlo dañ daan def ay show yu mag ci euh, Pâques bi lii daan ko defee euh, Baaramundi par exemple waaye jamono ji ak weeru koor gi foog nga ne mën na ne. weeru koor moom weeru weeru jaamu yàlla la weeru woor la weeru dellu sa borom la pour jullit yi ba tax na pratique culturelle yi des koy adapté ci ponk diine surtout ci weeru koor euh, mën na nekk ñu wàññi xew-xew yi événement festif yi ñu wàññi spectacle yi surtout spectacle yi nga xam ne ay artistes yu mag a mag ñoo koy tëgg waaye loolu euh, ku nekk euh, ni muy ni muy ni muy affecté sa sa activité en tant qu'artiste day dépendre ci yow sa gëm-gëm ak sa gis-gis ak euh, ni nga ko yàgg gisee ni nga ko yàgg xamee ak ni nga koy yàgg euh, defe euh, moo tax yenn bërëbu bu divertissement yi ñoom mën nañu maintenir seen activité waaye adapté ko nekk Euh, contenu bu approprié ci weeru koor am na ñoo xam ne nag dañuy décider carrément taxaw xaar ba koor gi jeex donc ku nekk ak sa gis-gis ak euh, ak li nga gëm noonu en tant que artiste noonu koy doxalee ci biir weeru koor. l'islam nag dafa tere musique rawatina ci weeru koor gi euh, foog nga ne rek musique bi dina mën a jàngale ci diini gi. question wu interdiction wu musique ci islam en réalité dafa complexe te débat bu yàgg même ci biir umma islamique bi même ci communauté musulmane bi débat boo xam ne tegu na ñenn ñi ñu koy ñu ngi musique lu xaram la ñeneen ñi ñu ngi naan mën nga ko def ci boo tënkoo ci yenn ponk lislaam yi yenn xeetu musique yi comme chant spirituel yi wala récitation poème religieux yi euh, ñu bëri jàpp nañ ne euh, mën nañ ko def euh, ci ci lislaam l'islam parce que dañ koy jàppee ni comme moyen la d'expression moyen de dévotion la pour pour pour dellu njukkal Euh, yenn prophètes yi ou simplement pour pour pour jaamu ci yàlla donc débat la boo xam ne yàgg na ñi ni comme ni ma ko waxee noonu lañ ko gisee nii ñeneen ñi neneen lañ ko gisee donc euh, débat la boo xam ne pense que du du jeex tey day continuer parce que ku nekk ak say gis-gis. est-ce que musique bi sax du participer ci li nga xamante ne mooy renforcer euh, diggante euh, jullit yi ak chrétiens yi. musique euh, dafa am doole dafa mën a sax transcender barrière religieuse yi mën na tax ay doomu aadama jokkoo ci niveau spirituel wala ci niveau émotionnel musique langage la bu universel boo xam ne day boole nit ñi day day day day boole nit ñi nga xam ne sax bokkuñu gëm-gëm ba tax na collaboration musicale entre artistes yi nga xam ne peut bokkuñu diine sax mën na favoriser li ñuy wax dialogue interreligieux euh, bu ñu jiitalee valeur yi nga xam ne moom lañu ñu partagé valeur yu mel ni valeur paix valeur amour ak valeur compassion. ndax nit mën na dund sans musique. ah dund sans musique lu mën a nekk la waaye ah, day am lu des lu bari expérience la bu doy waar bu nit mën a expérimenter waaye day day am luy des da am lu muy lu bari ndax musique mu ngi fépp chaque jour mu ñu yewoo ah, ci fànn boo nekk fànn bu nekk ci suñu dundin musique mu ngi ci muy musique ambiance bi ñu xam ci espace public yi wala euh, euh, way yi ñuy dégg rajo wala concert yi ñuy seetaan en direct euh, musique def ñi accompagner ci suñu moment de joie wala ay moment de tristesse wala ay moment de de de mbégte de de de célébration wala sax ay moment de réflexion musique aussi euh, outil la bu am doole boo xam ne outil thérapeutique la mën na indi réconfort mën na aussi indi inspiration ci moment yu difficile yoo xam ne nit mën na ko dund. bu weesoo divertissement bi ak jàngale gi muy def ban rôle rek la musique mën a jouer. bu weesoo rôle am bi nga xam ne moom la ñëpp xam moom la ñëpp jàpp muy. day divertir wala day jàngale musique am na yeneen impact yu mu mun a am yu yu am solo sax ci ci société mën na nekk moyen jox baat ñi amul baat mën na sensibiliser gis nañ ko ci ci ci ci crise politique bi nga xam ne weesu nañ ko ah, enjeux sociopolitiques yi ñu bëri ils ont été sensibilisés grâce à la musique musique aussi day promouvoir diversité culturelle ak inclusion musique euh, lien la mën na mën na nekk lien intergénérationnel parce que bu bu ñu tëggee li mag doon déglu démb ba xale yi tey découvrir ko loolu euh, musique mën na ko day day jaare ci musique day donc permettre ñu suñuy tradition euh, ñu mën ko transmettre suñuy histoire ak suñuy valeur ñu mën ko transmettre d'une génération à l'autre dañu gis nag ni jamono ji ak weeru koor gi activité artistes yi ci bëri dafa taxaw euh, ndax du impact yi tamit ci ñoom euh, financièrement dëgg la awa artiste musiciens yi mën nañu am ay jafe-jafe surtout bu seen activité taxawee wala wàññeekoo euh, bu ñu annulé concert wala buñu ñu tëjee bërëb yi nga ne ci lañ doon tëggee wala voyagé tuñu parce que koor lañu nekk voyage yi wàññeeku na loolu de am benn impact bu direct bu muy bu muy bu muy am seen sen buñ doon gañee fukk peut-être koor gi li ñuy gañe dina wàññeeku juróomi donc koor gi day am am na impact en fait ci ci ci euh, gafaga musicien yi parce que ñu ci bari ñoom ci ñoom ci concert yi lañu dépendre pour pour am xaalis pour gagner seen dund donc bu ñu amul concert yooyu dañuy mën a dañuy day tax ñu jànkonteel ay ay difficultés financières yoo xam ne parfois mën na jéggi dayoo. ana yan activité lañu ñu mën a def rek à la place. bu weeru kor ñëwee ba musiciens yi gis seen activité wàññeeku ralentiru bu baax. Euh, am na yeneen pexe wala yeneen activité yu ñu mën a développer ci seen ci seen cadre liggéey ba léegi pour peut-être euh, bañ Euh, mën a maintenir seen revenu euh, mën na nekk dem enregistré ji enregistrement bi xaalis la pour studio yi donc pour musiciens yi euh, la création de contenu en ligne comme di def ay vidéo mën nañ mën nañ tourner ay vidéo mën nañ tourner sax ay tutoriel maanaam ay vidéo yoo xam ne dañuy jàngale mën nañ aussi jàngale musique ci ci boppam donc loolu tamit source de revenu la boo xam ne bu bu weeru koor par exemple lu mel ni weeru koor ñëwee euh, mën nga ko def te mën na la indil euh, koom tuuti euh, wala aussi sax nga diversifié wu nga ut yeneen compétence ah jëm ci yeneen xeetu expression artistique yooyu yëpp day tax boo boo pertoon fële fii nga am nga am loo ci mën a récupérer. waaye lan la musique di indil euh, société rawatina ci koom-koomu réew Sénégal. musique expression force culturelle la bu am doole ci ci suñu société ci société sénégalaise euh, am na doole culturellement économiquement aussi am na am na lu muy peser dafa nekk. Euh, loo xam ne day jouer un rôle central ci dundu ñu sénégalais yi au quotidien muy ci plan religieux bi muy ci plan social bi ah suñu musique musique sénégalaise reconnaître nañ ko à l'échelle internationale pour pour richesse pour diversité mu nekk donc loo xam ne source la bu am solo source de fierté mais aussi euh, vecteur la pour promouvoir euh, suñu tourisme culturel la destination Sénégal. ana lan la artiste musicien yi tamit mën a xaar ci euh, njiit gu bees gi euh, di président Bassirou Diomaye Faye. artiste musicien yi mën nañu espérer que président bu bees bi di Bassirou Diomaye fay bàyyi xel ci seen nekkin bu baax a baax. déglu leen ak war a mébét seen soxla xool na niñ koy saafarawe mën nañu espérer ne dina jël ay mesures yu am solo euh, dina lu jëm ci par exemple subvention wala ay programme de développement professionnel wala sax ay ay projet yuy promouvoir musique sénégalaise ci ci scène internationale bi mën nañ xaar aussi gouvernement bi war a mën a nag formellement ne artistes yi am nañ njariñ ci société bi ñu reconnaître ko ah politique yi euh, en tout cas reconnaître ko taxawal ay politique yoo xam ne dañuy dooleel liggéeyu artistes yi ak créativité ci biir Sénégal. kon ndax mën nañoo xaar artistes yi am statut. ba léegi ci nouveau président bi nga xam ne euh, le deux incha allah lay lay jël fonction artistes yi war nañ mën a légitimement espérer ñu améliorer seen statut professionnel ak seen condition de travail mën nañu xaar xaarandi espérer nañ ko depuis des années mën nañ xaarandi nag bii par statut officiel de l'artiste ñu mën ko garantir ñu am benn protection sociale bu am solo bu am doole bu baax ñu mën a respecter seen droit professionnel et aussi ñu mën a am accès équitable aux opportunités muy opportunité financement ak opportunité de développement loolu dina permettre également ñu renforcer ñu gën a dëggal euh, ne artistes yi am nañ solo ci société bi seen contribution ci biir économie Sénégal ci biir culture Sénégal lu am solo la et ñu mën a taxaw ne ah ñii kat seen rôle en tant que ambassadeur culturel du Sénégal kenn waru ko naatable Lamine Ba jërëjëf may fàttali rek ne taskatu xibaar nga sa xel màcc lépp lu jëm ci wàllum aada ak cosaan fi nga xam te ne mooy Music in Africa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax